xel mi moo bu ma di bett waaye. ayca yaa ci des ñu dem. jërëgeen jëf. ayca Babacar jox ma Sud du Quotidien ñu doore ak moom mi xëy dikk ak ñun ci lu aju ci AFP Alliance des forces de progrès Malick Gakou mu fa nekkoon te ñu dàq ko Sud du Quotidien xëy ñu xamal ne lu aju ci Malick Gakou gannaaw dàq la àndal nañu séntu kon mu am benn riposte loo xamante ne ji ñoo ngi ko cay xaar foofee la ñuy mi quotidien moom it loolu la mu di AFP ñooñu la àndal euh, euh, mu ñuy xamal moom réew mi quotidien Babacar ñu xool réew mi quotidien en tout cas li mu def ci xëtam mu njëkk mooy El Hadji Malick li daloon Djiboka dal ki nga xamante ji moom moo di Idrissa Seck dal ki di Macky Sall ndax du mooy li ko nar a dal euh, mu di lan jafe-jafe yi nga xam ne dund nañ ko Walf Fadjri moom it daal di ñëw ci loolee nga xamante ne ji moom moo am mm, ci diggante Macky Sall ak ñi muy àndal mu di alliéem journal bi nañu ñetti parti ngi yoo xamante ne ji bu mu ci àndal en tout cas jafe-jafe lay jur ci sa biir bokk na ci LD bokk na ci parti socialiste bokk na kon ci parti bi nga xamantene ji mom modi AFP ngital parti socialiste ci la senegal mu di Ousmane Tanor Dieng ak ki nga xamne modi Khalifa Sall maire bu Dakar li xew journal bi nañu jafe-jafe yi nga xamne amna ci digënté maire bu Dakar ak gouvernement bu Sénégal jëm ci wal emprunt obligataire bi yene kay bi nañu Ousmane Tanor Dieng Khalifa Sall lay jàppal lolé wax nako mom lay jàppale mom la faral mom la àndal las moñu wax loola observateur xëy ñu léralal sax li waral ciow li nga xamantene ji mu am deug deug ci digënté maire bu dakar ak ki nga xamantene modi gouvernement gouvernement bu Sénégal jëm ci wàllu emprunt obligataire lan moo ci xew ñaar fukki milliards yi waral coow li lan moo tax nguurug Sénégal bañ bañ a gàddul mairie bu Dakar bor bi loolee lépp yéen a kay bi d'observateur xëy na ko leeral dem na ci ba jeex direct info moom it euh, ñëw ak ñun ci dem gi nga xamante ji premier ministre bu Sénégal di Mohamed Boun Abdallah Dionne Dem on ko ci assemblée nationale ak la mu Abbas Jaber lan moo tax Mohamed euh, Boun Abdallah Dionne maire kii di Abbas Jaber direct info da qui dem directement gën ñu koo leeralal ñu dem ci grand place xool yi fa leneen lu aju ci euh, Biri Karim Wade 23 mars ca la wax lan la yoon dogal ci ay mbiram yéen a kaay bi nañu dañuy njoxtu ne waa Parti démocratique Sénégal dañoo bëgg bu fekkente ne Karim ñu indi fitna ci réewum Sénégal loolee nag la waajal ba tax na am na ñoo xamante ne ñoo ngi teg seen plan loolu sax yéen a bi nañu jur ñoo xam ne teg nañu leen loxo ca banlieue bu Ndakaaru journal bi nañu renseignements généraux yi ñoom ñooy ragal daal ñu saboté réew mi lu aju ci wàllu atteinte la sûreté de l'État la ñuy ragal ñi nga xamante ne jàpp nañ leen koy toppee ñan la ñu ci jàpp le quotidien xëy ñu xamale waa ne ji moom moo di euh, xëy ñu xamal ne lu aju ci mbir yi euh, loolee ñuy waajal ca banlieue bu Ndakaaru Alioune Sall lañ ci gënoon a visé li ñu bëggoon mooy amal ay manifester buntu Pikine ba rond-point Case ba ki nga xamante ne ji nag moom moo di Bathie Seras yéen a kaay bi nañu moom lañ ci gën a tuumal moom Bathie Seras la ñu gis ne daal moom ak beneen waay bu ñu naan Amina bokk ci UGTL ñoom ñooy ñi ñu ci jàpp Euh, quotidien dellu siwaat mais moom daf ko xëy simple ci titre bi bàcci seras ma ca loxo yoon le quotidien nam ñu ko xëy waxe moo di ki nga xamante ne ji mooy bàcci seras jàppale ne kon euh, ma kon ci écurie bu rëbës ñu dem ci enquête mi dikkal ñun ci meneen biir enquête mi ngi nii xëy ñu xamal ne kon waa mouvement Y'en a am na ci ñoo xamante ne ji teg nañu leen loxo ca fi nga xam ne moom moo di Congo Kinshasa bokk na ci Fadel Barro bokk ci Fou demoon foofee ànd yeneen kuréel bëgg a doxal a marre ca réew ma far Kabila mujju maar ci ñoom euh, jàpp leen

merci Mohamed. merci dernier mot tu remercies les chroniqueurs. tu prends les 100 qui sont là-bas. et Alphine de bonne dégustation.